teg ko ci loxo sëñ Cheikh Ahmad Tidiane Seck. jëlee ko ci ne mu àggale ko ba ci Baye Serigne Assane Seck. ak njabootu maam Amary Ndak Seck yëpp. noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp. suba daanaka li waroon a wax. nee na li waroon a wax tey ci suba. wax nañ ko. waaye sëriñ Seexu Wali. yi Saada dafa ma sëñ Saada dafa ma dee léegi. ni ma yàgg sëñ Seexu waa kër moo mag. ma ne ko sëñ Seexu ma mag. moo tax mu jël kàddu gi. moo tax mu jël kaddu gi. jox ko sëñ Seexu. jox sëriñ Seexu. waaye sëñ Seexu jëlaat kaddu gi. sëñ Seexu jëlaat kaddu gi. joxaat ma ko joxaat ma loolu rek mooy ndabal teraanga. loolu mooy ndabal teraanga. ndabal teraanga. ndabal teraanga. dañu koy buuxante. ba mu toj. waaye kenn du ko xëccoo. ba muy toj. koo muy muy muy muy mer nee na koo dégg muy mer ci tànt. daa yàggul a toog ci programme. daa yàggul a toog si programme. waaye koo xam ne saa yoo xëyee. ñu ngi lay woo ci programme. ñu ngi lay woo ci programme. doo xëccoo ci rajo. doo xëccoo ci rajo. doo xëccoo waxuma. doo xëccoo waxuma. tudduñu ma. doo waa biir. yéen waa biir. li ma waxoon ci suba. li ma waxoon ci suba. laa leen di waxaat. loolu lay waxaat. dama leen woon. dama leen a waxoon ni. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi sallallahu alayhi wa la juddoo woon. Makka la juddoo woon. bi mu juddoo Makka. xëy taxaw xëy taxaw ni yàllaa ma yónni ni ma yónni yéefar yi yéefar yi naan kii de naa kii daa am damaa yaakaar ni damaa yaakaar ni dafa dof daa dof waaye léegi nañ waxtaan ak moom waaye nañu wax ak moom bu dee daa bëgg xaalis. ñu jox ko ko tam noppi. ko ko mu noppi. bu fekkee daa bëgg ay soxna. bu bëggee soxna. ñu jox ko ko tam noppi. ñu jox ko ko mu noppi. lu wax ko ko. nekk ñu wax ko ko. waaye yàlla ku mu yónni. yàlla nag ku mu yónni. da lay téeñal daf lay bi mu ba sonn. nee na bi mu sonnee. mu ne damay dem taayif. mu ne damay dem taayif. samay samay mbokk. samay mbokk. xëy na dinañ ma dimbale. xay na daañu ma dimbale. ba mu eggee ca mbokk ya. bi mu àggee ca mbokk ya. nu koy sànni xeer. nu koy sànni xeer. boole kook ay dof. garab. mu dem ci taatu garab tànk bi nàcc yàlla yebal jibril yàlla yebal jibril ni ko tey ni ko tey boo bëggee soo bëggee ma jël suuf si ma suuf si yóbbu ko ca kaw yóbbu ko ca kaw jël asamaan wàcce ko ci suuf wàcce ci suuf yonent bi ni ko yonent bi euh, ñii day ñii dañoo xamul dañ maa xamul dañoo xamul dañoo xamul jéggal leen jéggal leen noonu la ab sang di def noonu la ab sang di waaye Baye Sada waaye Baye Sëriñ sëñ Madick Seck daan wax. li sëñ Madick Seck daa wax. nee na boo fi bàyyee doom joo bokkulul jom mu ni soo fi bàyyee doom joo bokkulul jom aw naqar dong la lay indil aw naqar la lay indil waaye du la fajal gàcc waaye du la fajal gàcc waaye tey jii waaye ku xool tàntu tey bii sagal nga maam Amari Ndaak sagal nga maam Ahmadou Ndaak sagal nga maam Mamar Taala sagal nga maam Mamar Taala sagal nga maam ma dikke sagal maam ma dikke sagal nga maam européen nga say mbokk yëpp waaye sagal nga bokk yëpp sagal nga say say sa say nijaay sagal nga say nijaay sagal nga say baay sagal nga say baay sagal nga say yaay sagal nga say waaye sagal nga waa dëkk bi dëkk bii dëkk bii kat Baye Mbaye Seck njëkku fee ñëw. Baye Mbaye Seck njëkku fee ñëw. dëkk bii. dëkk bii. Baye Alpha Mamour njëkku fee ñëw. Baye Alpha njëkku fee ñëw. dëkk bii. dëkk bii. Ibrahima Seck njëkku fee ñëw. sëñ Ibrahima Seck njëkku fee ñëw. dëkk bii. dëkk bii. ñu fi njëkk a ñëw. ñu fi njëkk a ñëw. maam Amari Ndaak. maam Amari wala. maam Mamar Tall ak njabootam. fekkoon fi ay mag. fekkoon fi ay mag. am fu ñu leen tegoon. am fu ñu leen tegoon. am lu ñu leen wanoon. am lu ñu leen wanoon. loolee ñu doon ko gis. ñuy gis loola. di ko top di ko topp. ba fii. ba fii. yàqoo yàqoo ci dara bàyyi Sadio. ñun ñii di say mbokk nag. ñun ñii di say mbokk nag. ñëpp kontaan nag ñun ñëpp kontaan tey. tey ku génn jóge fii. tey ku jóge fii. di am loo nett di nga loo nett li. dañuy wax ni. dañuy wax ni. gan gan. kenn mënu ko tere ñett. kenn mënu ko tere ñett. seetlu seetlu. xool xool ak génn nettali ak génn nettali la ngay nettali la ngay nettali yàlla lu baax yàlla nekk lu baax wala mu nekk leneen waaye tey ku dugg biir ku dugg biir dem ca Baye Assane dem ca Baye Assane wala nga dem sëñ Mut Sekk wala sëñ Mut Sekk wala sëñ Jibi wala sëñ la ngay wax lu baax rek lay doon Baye Sada yàlla na yàlla guddal sa fan lii nga def lii nga def kontaan nañ ci kontaan nañ waaye yéen waa biir waaye yéen waa biir na ngeen téye Baye Sadim na ngeen téye Baye Sadim bi. waxoon naa leen ko ci suba. waxoon naa la ko ci suba. nee naa leen. nee leen. am na benn waay. am na benn waay. daa bokk ci daayira bi. daa bokk ci daayira bi. nuy ziare góor gu mag. nuy ziare góor gu mag. benn juróomi dërëm la yor. benn juróomi dërëm la yor. koo jox góor gu mag koo jox góor gu mag. te góor gu mag yëg ci na ci. góor gu na ci baatin. ni ko ni taalibe bii de. ni taalibe bii. juróomi juróom yi mu yor. dama a jox rek. daf ma ko rus a jox. waaye waaye moom la ma ko jox. waaye moom la ma bëgg a jox. a ko waaye rus na ma ko jox góor gu mag dimbali ko góor gu mag dimbali ko toog ba mu yàgg toog ba yàgg mu ne ku fi yor juróomi dërëm waaye mu ne ma yónnee ci socc ma yónnee ci socc waa ji ni bërit ni sëñ bi am addiya jaa ngi mu ne ko xamoon naa ko bu yàgg dama laa bëggoon a dimbali yéen waa béer yéen bu leen xoolee Baye Saada nii bu ngeen xoolee baay Saada bu leen ko xoolee nii bu leen ko xoolee nii day dem ci àll bi day dem ci àll bi gis lii ngeen koy defal lii ngeen koy defal lépp dama ko naan ni suba ne leen ci wax naa ni fukki nag bu ngeen ko jëndoon fukki nag su ngeen ko jëndoon jox ko ko jox ko ko lam cay lekk lam cay lekk du mat genn wàll libar lépp taalibi la koy joxaat taalibi la koy joxaat ab dëkk ne ab dëkk Baye Ousmane Seck nee na. Baye Ousmane Seck nee na. dëkk boo dem. dëkk boo dem. kañ ñi moo fa gën a jàmbure. kañ ñi moo fa gën a jàmbure. moo fa yées moo fa yées. nit ca nit ña. nit da ngay dem ca nit ña. da ngay dem ca nit ña. bokk ca nit ña. lu ñu woote nga fekk. lu ñu woote nga fekk lu ñu laaj nga joxe. bu ëllëgee. ne soo legee boo xewlee. soo xewlee. nit ñi dañuy ñëw. daaw Baye Assane dañoo toog ci ci buntu kër Baye Mor nee na daaw Baye Assane dañu toog buntu kër Baye Mor yi ca jotaay ba ca ba mu day ma ni ma abdu ni ma abdu noo def noo def ba dajalee mbooloo mi ba dajale mbooloo mi ma ni ko xaw a dee mu ne ma sa baay de mu ma sa baay mës sa dajale mbooloo mu toll nii ma ni ko moom bëgg ko waaye bu ko bëggoon waaye su bëggoon dana ko def jamono nag jamono moo laaj képp ku fi sa baay baay. képp ku fi sa baay baay. nga fexe ba bu ñu yeb sa baay. nga fexe ba bu ñu yeb sa baay. nga fexe ba bu ñu wax sa baay ginnaawam dara. nga fexe ba bu kenn wax sa baay ginnaawam dara. sëñ Ibrahima Seck. sëñ Ibrahima Seck. géwél ba def ni ko. géwél ba def ko ni. da ngaa sagal sa baay. da ngaa sagal sa baay. sa baay da sa baay da laa sagoo. waaye yow da ngaa sagal sa baay. waaye da ngaa sagal sa baay. ba kenn mënut a wax sa baay ginnaawam. ba kenn mënut a wax sa baay ginnaawam. dara dara. noonu la nit di def noonu la nit di def day am fulla nit day am fulla téye sa baay téye sa baay téye sa taalibey baay téye sa xariti baay téye sa mbokki baay loolu loolu loolu mooy fulla looloy fulla ne Baye Sada ko dugg fii tey xam nga ni Baye Mbaye Seck yaafu sul de lu mu ñàkk a ñàkk yaafus bu fi woon doom ji mel ne kenn bu dul yow nee na bu fi bàyyi woon doom joo xam ne amul taxawaay nee na kon tey du mel nii yàlla yàlla sàmm leen yàlla yàlla sàmm leen. ñaanal sunu mag ja. ñaanal sunu mag ja. Serigne Maodo Seck. nee na sëñ Cheikh wax na ko léegi. sëñ Saara daa jaar ni nuyoo. sëñ Saara daa jaar ni nuyoo. mu ni ma sëñ Maodo baax. mu ma sëñ Maodo baax. kii de sëñ Maodo la ko sëñ Saara la ko tuddee. kii de sëñ ma ne ko nag sëñ Maodo. ma ne ko sëñ Maodo. lu ko xal defal. lu mu defal rakkam yi. waaye lu ko rakkam defal fayuñu ko. ndax ñoom ñoom sëñ daara ñoom ñii. ñoom sëñ daara ñoom. bu ñuy jox sëñ Maodo addiya. bu ñuy jox sëñ Maodo addiya. ni ko sëñ ni ko sëñ Seex waxee léegi. ni ko sëñ Seex waxee. dañuy mel ni Baye Fall. dañuy mel ni Baye Fall ci am murid. dañ dañ koy boole jox seen alal. dañ koy jox seen alal. ba noppi boole si jooy. ba noppi boole si jooy. waaye sëñ Maodo itam. waaye sëñ Maodo itam. yoon ko gore. nekk ku gore. nekkoon ku am fulla. nekk borom fulla. nekkoon ku am fayda. nekk borom fayda waaye nag ku xamul boppam. waaye nag ku xamul boppam. te xam ba xam jeex. te xam ba xam jeex. xam sa bopp rek sa bopp moo ci gën. kon sëñ Maodo sëñ Saada ñu ngi lay. sëñ Saada ñu ngi lay santaat. di nuyu njabootu Baye Maodo gi. nuyu njabootu Baye Maodo. nuyu njabootu moom. sëñ Abdou euh, dañ koo jige ba. dañ koo jige ba. ba mënuñoo seede ci moom dara. ba mënuñoo seede ci moom. waaye nitu yàlla pire. waaye nitu yàlla pire. bu raxul dara. bu raxul dara. sëriñu kese kese. kese kese. bu raxul dara. bu raxul dara. ku koy wër. ku koy wër. demal seet sëñ Abdou lépp lu la réer ci mag ñi. lépp lu la réer ci mag ñi. lépp lu la réer ci mag ñi. lu la réer ci mag boo toogee keppaaram. lu mag ñi daan waxtaane. lu mag ñi Karim dana ko waxtaane. Ah, xale yi xamuñu mag ñi. dañuy toog ku mel ne sëñ Abdou Karim. dañuy toog ak ne sëñ Abdou Karim. mu leen wax mag ñi. mu naa leen mag ñi. nii lañ daan def. nii lañ daan def nii daan mel. boo fa jógee boo fa jógee da ngay am loo jàng. kon sëñ Ma Jojo. sëñ ñu ngi lay sant bu baax. yow ñu ngi lay sant. sunu rakk nga. sunu rakk nga. sunu xarit nga. sunu xarit nga. ku leen ku ñu kii doomu Baye Assane la. nee wax kii doomu Baye Assane la. doo ko sax gëm. wane woo ko. yow wane woo ko. ci doxin ci doxin. wane woo ko wane woo ko. ci colin ci ak colin. wane woo ko wane woo ko. ci biir Canaba nee na ci biir Canaba. en tant que taaw xalifa général. yal na yàlla sàmm la. yal yàlla sàmm la. Seexu Wali. sëriñ Seexu Wali. cër bi yow it cër bi cër bi ñu jox cër bi ñu jox la koy delloo dëkk bii dëkk ma ko gën miin yaa ma xam nit ñi boo wax boo naan diw jaar ciw tur waaye war ma war ak joxe cër ak joxe moo tax nga jox ma ko mi ngi nuyu sëñ ñaax sama rak moo topp ci man sama rak moo topp ci man mook saada ñoo dëkkandoo mook sëñ saada ñoo dëkkandoo kon lii nee naa sëñ saada léegi nee naa sëñ saada li nga am ci sëñ bii li nga am sëñ ñaax tey yombul yombul de xëy soo ba tey xëy toogal la fii loo koy jox man de xaw ma looy jox si ñaax waaye li def tey nee na loolu daal sant nañ toog toogaloo si ñaax ci tant bii ba heure bii ñoo ngi lay sant ci loolu bàyyi ma dikke sek ñoo gi lay sant bu baax nit ku baax la ne ku bëgg lu baax te bëggul si daraja dara